ci nag dafa am ñenn ñoo xam ne ñoo nekk ci wetu Macky Sall di ko nax di ko manipuler waaye nag mbir mi nar naa metti lool ci moom su dee xippuwul ay bëtama maanaam jàngat li nga xam ne mooy élection locale yi xam ngeen ne xel sax munta nangu Macky Sall taxaw naan élection yi moo ko gagné lu toll ci quatre-vingt pour cent waaye nag Macky Sall maanaam quatre-vingt si boppam dafa mel ni daf ko bëgg ndax bi Idrissa Seck doog di ñëw ci moom nee woon na moom ak Idi bu ñu booloo mën a kaay na boppam yéen kaay gi di wal fajëre ci xët mu njëkk nee na yeewu askan wi ginnaaw nag bi mu gañee li nga xam ne mooy élection locale yi ci gox yu bare bare jamono ji nag combat bi nga xam ne moo ko desee mooy élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen kaay gi di enquête nee na Khalifa def na liggéey bu rëy ci biir yeewu askan wi ndax lépp loo xam ne jëm na ci wàllum unité wàllum joxante loxo loolu lépp Khalifa Sall moo ko doon lijjante waaye tamit jël mooy Dakar ndax Khalifa Sall bi mu gañee Dakar dañu ko yoo xam ne moo gañe woon ak taxawu ndakaaru maire yooyee daal daw dem làqatu ci Macky Sall yéen kaay gi di leen fois nee na maire yi nga xam ne ñoo waroon Khalifa Sall dem ci benn bokk yaakaar ci ndakaaru am na ci ay maire yoo xam ne Khalifa Sall dafa nanguwaat mairie ba bu ci mel ni mairie bu Parcelles Assainies ndax Moussa Sy Khalifa Sall la àndaloon ba gañe parcelle bi ñu gañe parcelle Moussa Sy bàyyi Khalifa Sall dem ci benn bokk yaakaar 2022 ñëw na Khalifa Sall na parcelle Banda Diop Banda Diop bàyyi ko élection locale 2022 Khalifa Sall nangu woon na Padoa ci loxol Banda Diop noonee la demee ca Ousmane Doy Colobane Fass Gueule noonee tamit la demee ca Asalem ca Pape Seck yéen gi di xëy duñu xibaar naan ñu résultat provisoire yi Thiès ak Rufisque maanaam yeewi askan wi amuñu nag benn yoon yërmande ci ñi nga xam ne ñooy Benno Bokk Yaakaar maanaam dañu leen a dóor ba ñuy bëgg a dee xëy dañu xibaar naan ñu sa diwaanu commune yi yi nga xam ne moo am Thiès ñetti communes yëpp la Yewwi jël ba pare jël li nga xam ne mooy ville bi indi la décadence journal bi nee na Idrissa Seck ñàkk na lépp jamono ci yéen gi di Source A daan nay wax nag ne maire yi nga xam ne fal nañu leen li nga xam ne moom la askan wi nag di xaar ci ñoom lu jëm ci wàllum sécurité maanaam nag gox yoo xam ne dafay set wecc lu jëm ci wàllum pavage ak yeneen ak yeneen yéen kaay gi di L'Observateur nee na Daaru gox bu bees moo gagné candidat Benno Bokk Yaakaar ba yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na nag mobilisation bu rëy nit ki nag moo amoon ci place l'Obélisque ay organisation société civile ñoo ko doon def ngir nag jàppale nag waa Mali ngir daan nga xam ne CEDEAO teg na leen ko yéenekaay gi di Le Quotidien ñu koy fekk fa nag njiitu réewum di Paul Kagame nee nag coup d'état yu bari yi nga xam ne moo am ci dëndu Afrique mal gouvernance rek yorinu bon mandaam bi maanaam ba am réussir ci mandaam bi yéene kaay gi di réew xëy séq waxtaan wu yaatu ak waykat bii di Paulette Jémé journal bi nee na ab sénégalo capverdien la moom nag xale bu jigéen bi waykat bi ma ngi leeral ci journal bi di expliquer lan moo tax ñu gëj koo dégg nee nag dafa amoon doom ba nag daal di feebar boo xam ne feebar bu yàgg la jamono ji daan nay commencé waat li nga xam ne moo jëm ci wàllum répétition yi ci studio ba dugg ci expérience bi nga xam ne moom la amee yéen kaay gi di Les ñu koy fekk fa Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra moom nag mere na lool lool lool ñi nga xam ne ñooy imaam yi demoon ca pale ba nag maanaam di wax ak Macky Sall ci lu jëm ci borom ñaari tur yi Mame Makhtar Gueye nee na ñu ñi nga xam ne ñoo fa demoon dañoo manipuler Macky Sall bi tey nag ñu jéem a dem ci Macky di ko jéem a dëbbali njaam Mame Makhtar Gueye daat nay wax ne Macky